Tektal TV maa ngi leen di nuyu di kontaan ci invitation bi euh, man la moment Africa di vice-présidente bu RAFEC réseau des femmes entrepreneurs culturelles et bi du Sénégal bi nga xamante ni suñu siège social muy centre culturel régional bi la Senghor tey nag ñu ñëw fii di waxtaanee jaba art muy luuma culturel bi nga xamante dañ koy organiser di foire artisanale euh, ci centre culturel bi la Senghor à partir du 17 muy vendredi incha allah rabbi waaw Refec nag euh, ñu ko déggee dafa nekk réseau boo xamante ni dafa ëmb plus de 350 femmes ñëpp nekk ay entrepreneur ku ci nekk da nga yor sa entreprise donc ñi ngi ko ñi ngi exister depuis 2012 euh, tey nag luuma bi jaba aar bi xam ne dañu koy def ñu ngi koy defee centre culturel Blaise Senghor dañ fay représenter les neuf secteurs de la culture Euh, dafay tax jigéen ñi nga xamante ni dañu nekk ca dafa yor seeni entreprise ñii di ñaw ñii di cuub ñii di def artisanat d'art ñii di wéy ñii di def danse ñi di def rap ñii di def euh, service livre ñëpp nañ fa daje wane wane li nga xamante ni mooy seen liggéey ndax parfois booy liggéey da ngay euh, da ngay soxla visibilité moo tax ñu ne li tax chaque fois ñun ñooy dem di fekk nit ñi tey nag nit ñi ñoo ñoo fekk ci les acteurs culturels donc damay bàyyi rek trésorier bi comme ça moom mu gën ci expliquer ci stand yi ak ni muy demee. Mm-hmm. ah mën nañu remercier bu baax Maman Africa suñu vice présidente rafet euh, di am kontaan lool tamit ci initiative bi ak émission bi ngeen ñu invité nii di wax ni man la madame Badé Mame Diarra Wade Mbaye euh, euh, actuelle trésorier général bu réseau des femmes. entrepreneuriat culturel et comme ni mu ko waxee. Mhm. waaw lii wax ni nag euh, bii mooy suñu euh, première édition. Mhm. Euh, comme ni mu ko waxee ren dafa nekk loo xam dafa yaatu dafa rëy neuf secteurs la. comme ni ñu ko waxee rek ñun tey ñun ñoo xewle ñun dañ naan dem di fekk ji wax na ko stand yi ñu ngi fa macha allah ngi invité suñu nawam yëpp d' abord waa Refec comme ni ma ko waxee. Euh, ak euh, képp koo xamante ni bi rek yaa ngi ci milieu bi euh, di def artisanat comme moom nu ko limee di def théâtre di def service di def tableau ay plasticien affaire yooyu noonu yooyu yëpp daal ñu leen di woo di wax di woo tamit suñu ministre de la femme di woo suñu ministre de la culture di woo suñu directeur yi nga xamante ni ne ñoom ñoo fekkee fii ci région de Dakar di woo directeur centre yëpp daal ba rawat na nag ki nga xam ne mooy suñu directeur centre culturel blessé nga xam ne foofu mooy suñu siège di woo tamit euh, suñu parrain euh, ndax Diouf Sarr moo doon suñu parrain depuis comme ni ko waxee ba léegi euh, mu ministre de la santé di maire Yoff ah ñu koy ñaanal tamit li muy ut yàlla na ko ko yàlla may di woo ñëpp daal ak secteur bi ñu leen di woo comme le date bi le 17 la ba le 23 décembre instant bi nag comme sëy mu daanu te dañu wax luuma ñu ni luuma ñu ni jabar aar ñu koy waxee ci suñu kàllaama euh, stand yaa ngi ko daal en tout cas yomb na ndax lépp da jël siwaat si suñu biir rek ñun euh, réseau bi yombal la ko tamit ñi nga xamante ne ñoo ñëw tamit dañuy fekk si pour ñoo mën a wane seen bopp seen liggéey euh, li ñuy liggéey waaw loolu la stand yi daal cheru ñi ngi woo daal ñëpp daal ñu ñëw ñi ngi réseau bi parce que réseau bi yaatu na rëy te am na solo daal am na solo loolu. waaw comme ni ko sama euh, kii waxee rek madame Balde ñuy wax ne ouverture bi vendredi la le 17 ñi ciy woo acteurs culturels yëpp parce que tey rafet moo aaye. muy euh, réseau bi nga xamante ni dafa ëmb jigéenu acteur culturel yëpp yi nekk ci Sénégal ki neuf secteurs de la culture artisanale donc ouverture bi nag euh, ñi ngi fay woo suñu partenaires yëpp yëpp yi nga xamante ni mooy réseau yi nga xamante ni dañu def en partenariat ak Rafet euh, suñuy membre bokk ci ñu ngi leen di woo di woo réseau Sigil Jigéen réseau AFMES les Amazones de développement ñëpp ñu ngi leen di woo ci ouverture bi di wax tamit euh, programme bi dinañ def euh, dépistage nañ def am na bari na yi nga xamante ni di nañ ko fa def parce que durant une semaine lañ fay nekk ci une semaine chaque jour am na programme donc programme bi nag ñi ngi laaj ñi ngi ñaan jigéen ñi Euh, te buñ nee Rafec dañuy wax euh, jigéen te réseau bi on est plus de 350 femmes ñëpp ay jigéen lañ di wax ouverture ba dañuy ñaan jigéen ñëpp nañu sol lu weex ndax euh, violence bi nekk ci dëkk bi tamit dafa bari te jigéen ñi la ñuy violenté jigéen ñi la ñuy sonal suñuy doom la ñuy sonal suñuy rakk la ñuy violenté blanc boobu dafay permettre tey ñu tey boo nee ku sol blanc dinañ laaj lan mooy blanc parce que bonheur la paix la lépp dafa ëmb lu weex donc ñuy ñaan nañu sol lu weex fekk suñu ministre de fekk fa suñu parrain fekk fa kilifa yi fa war a nekk ak suñu ministre bi nga xamante ni mooy suñu ministre tutelle bi ministre de la euh, di di di di di di woo ñëpp ñi nga xamante ni rek tey suñuy partenaire lañ parce que mënuñu lim dañu bari macha allah ñi ngi leen di woo di woo waa Refec fépp fu membre nekk ci dakaar ci Sénégal di 17 suñu bés la ñun ñoo ko moom te jigéen gis nañ ne lépp lu muy def rek dafay dafa dafa dafa dafay am bés am jëmm donc ñi ngi woo jigéen ñëpp di invité sénégalais yëpp nañ ñëw fekkee ko incha allah rabbi damay bàyyi madame Balde rek mu continuer ci programme bi. Euh, euh, euh, pour ma ma gën a ñëwaat ci programme bi comme ni nga ko waxee Jawa Art lañ wax. Mm-hmm. luuma Art lañ wax culturel. soxlawuñu koo xamante bi ne da ngay dem di jënd yoo xamante bi ne mën naa ko tudd Petersen di ko fi indi kooku dañ ko fay tere lépp lu ñu fay def loo xam ne dañ ko liggéey ci suñu loxo muy agro agroalimentaire muy couture comme nu mu ko waxee muy lépp loo xam ne daal dañ ko transformation même artiste plasticien yi parce que comme ñu mu gën a clair mhm. Rafec dafa ëmb artistes yu jigéen yëpp ñiy def danse ñiy def mhm. rap ñiy def théâtre mhm. ñiy def service ñiy def euh, art plastique ñiy def cinéma audiovisuel ah, théâtre ñëpp ñi ngi ci donc ñooñu ñëpp ku ci nekk tey boo ñëwee da fa leen sa fekk neuf secteurs yi exemple tey boo ñëwee en fait culture Sénégal nga fay fekk en miniature culture Sénégal nga fay fekk parce que jigéen ñi tey fu fépp jigéen di liggéey ci culture boo ñëwee da ko fekk foofu muy rafet. en même temps dañu amaale ay formation am nañu ay formation comme ni mu ko waxee consultation gratuite ak waa Maristop Sénégal sur le col de l'utérus de l'enfant ñu amaat encore planification familiale euh, di defaale encore ophtalmologique am euh, ophtalmo am na ci en même temps tamit am na transformation parce que dañuy liggéey comme workshop gars yi dañuy def euh, savon def teinture ci biir kii bi chaque jour rek am na benn euh, kii formation bu ñuy def euh, chaque jour ba ba ba ba une semaine ba jour yi mat du 17 au 23 décembre. Euh, donc dañuy remercier waa Tektal TV di kontaan ci invitation bi di ñaanal yàlla site bi mu dem ba nekk télé bu mag macha allah. parce que gis nañ vraiment accueil bi déjà sama kii moom dafa tardé dama wax ay wax dama ko bu da ngeen koy sanctionné bu leen pare ah, donc di wax accueil bi ngeen ñu accueillir vraiment. dañu leen di ñaanal xam nga di wax acteur culturel yi dañuy ñëw fii Tektal TV mm-hmm. parce que fii suñu kër la yaatal ngeen ñu xam nga te loolu dafa am solo ndax boo duggee ci kër bu ñu la mm. nuyoo rek fay ba rek day day wane yëpp mais wan ngeen ñu ne ay jeunes ngeen mm-hmm, te tey Sénégal dañu war a jàppale jeunes yi accompagner jeunes yi mm-hmm. donc te ñun ay entrepreneur donc xam nañ li ci li ci liggéey bi donc dañ leen di ñaanal di wax ñëpp nañ ñëw jàppale leen acteurs culturels yi xam nga tey bu ñu nee Sénégal ne acteur culturel réseau nañu ñëw jàppale waa Tektal TV di fi def mm-hmm. seen i émission xam nga di leen décoreel di leen euh, bu ñu amee événement ñu ñëw jàpp ci wane suñu bopp nañ leen ci suñuy mbir donc di leen remercier di leen jaajëfal macha allah. waaw comme ni mu koy waxee rek ñu ngi remercier ñëpp rek comme ni mu ko waxee waa Tektal TV wax dëgg yàlla mention mention spéciale chapeau seen liggéey ma dama leen di suivre à tout moment gis naa ni ngeen di jàppale entrepreneurs yi surtout euh, moyenne et petite entreprise yi. Ah, di remercier tamit suñu présidente Rafet wax dëgg yàlla madame euh, Adama Boye euh, du koo xam ne ku disponible ndax moom suñu teewaay fii tamit moom moo ñu yabal. Mm-hmm. ak secrétaire Thiané. ak sunu trésorier général euh, Marème Niang maire Dial di di di ñoom bu ñu leen waxee rek remercier nañu waa réseau euh, mm-hmm. Refec yëpp parce que liggéey bi wax dëgg yàlla metti na mais ñëpp a ci ñoom ñëpp a ci jàpp kon ñu ci jàpp ñëpp ñu ngi leen di remercier mm-hmm. ah di di di remercier tamit sama sama sama raq ji <laughs> macha allah <laughs> nga xam xamante moom tamit dafa disponible tamit nag maman ku baax disponible ci lépp nag moom tamit sonn ci lool tamit ñu ngi koy remercier bu baax di wax daal ñu ngi woo ñëpp